أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci di leen baalu àq bu baax nu fas yéenee ñëw ak yéen ci leçon yi nga xam ne dañ ko waajaloon mu jëm ci saxaaba yi ridwanullahi alayhim ndax boo xoolee lu jëm ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam lu jiitu gane jamonoom ni mu ganee jamono lu jiitu ñu koy yónni niñ ko yónnee ak étape bu makkaat bu madinatul munawwara ba ni wàccab liggéey yooyu yëpp def nañ ci ay leçon ba mi ngi ci internet bi looloo tax bi noppee ci liggéey boobu ñu sàkkuwaat ci ñun ñu ñëw ci ab liggéey boo xam ne day jëm ci saxaaba yi ridwanullahi alayhim ñu def ci ay jàngat yoo xam ne dañ ciy jël ab lim bu takku kenn ku ci nekk ñu waxtaan ci moom wax ay jaar-jaaram wax moom mooy kan fan la juddoo nan la meloon ak yan la gënoon a fés loolu nag mooy liggéey bi nga xam ne moom lañ bëgg a fas yéene di ñaan suñu borom mu nangu ko ca barkeel ko looloo tax sax tey ci bind bu njëkk bi yi nga xam ne ci la ñuy tàmbalee liggéey bi dañ cee bëggoon a leeral ci tënk rek lan mooy saxaaba yi lan moo di saxaaba wala ñan ñooy saxaaba yi ak lenn ci seeni ngëneel saxaaba nag saxaabatu buñ ko waxee loolu baatub arab la boo xam ne mi ngi firi ànd àndandoo wala taqoo fuñ ko waxee nag liñ ci jublu dëgg dëgg dëgg mooy ñi nga xam ne ñoo àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gëm ko ànd ak moom ci liggéey bi ba wàccu liggéey faatuwaale ak seen ngëm googu léeg-léeg nag boroom xam-xam yi di jëfandikoo ñi gis yonente bi wala ñi dajeeg yonente bi am ñu naan ñu dundandoo ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye lu mën di xew daal mooy saxaaba moom ci gàttal rek mooy ñoo xam ne ñoo ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo bokk génération ànd ak moom dund waaye charte ba nag mooy ñu gëm ko charte ba ca toppaatin mooy gëm googu ñu ko gëm ñu faatuwaale ngëm googu ndax dafa amoon ci ñoom ñi nga xam ne dañoo daje woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo xam ne gëmoon nañ ko waaye saytaane da leen a man ba mujj murtat ñooñu kenn du leen boole ci saxaaba yi wala ñi nga xam ne ginnaaw yonent bi lañ ñëw ci loxoy saxaaba yi lañ tuube ñooñu it kenn du leen dugal ci limub saxaaba yi kon saxaaba mooy ku dajeeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daje gi nag mooy dundandoog moom maanaam fekke ay jamonoom ndax am na ci ñoom ñoo xam ne fekk nañ jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye gisuñu ko ngir ne dañoo silmaxa woon wala bokkuñu ak moom dëkk buñ nekk waaye teewul gëm nañ ko rafetal seenu ngëm ak seenu lislaam ba faatuwaale ngëm googu ñooñu ñooy saxaaba yi di ñu tedd di ñu màgg di ñu sell ñoo xam ne rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam wax na ne suñ borom moo leen tànn moo ma leen tànnal yàlla moo ma tànnal samay saxaaba moo xool ci nit ñi ñi nga xam ne ñoo ca gën wala ñi nga xam ne ñoom la soob moom borom bi ci seenu melo ak seen jikko yu rafet mu boole ma ak ñoom buñ ko waxee nag ñoom léeg-léeg sax nga gis borom xam-xam yi di werante ci lim bi waaye daal li gën a wér te nga xam ne moom lañ jàpp yi ne moo gën a wér mooy lim ne nangamu lim la loolu dana jafe lool ngir ne dañoo nekkoon ci ay dëkk yu wuute xamante wuñ woon ñoom ñëpp it boole ci li ci desaan nag mooy ñi nga xam ne dañuy gëstu ci fànn xam-xamu siira ñoom nee nañ saxaaba yi mën nañ koo xaaj ci ñetti xaaj mën nañ koo xaaj ci ñetti xaaj mooy xaaj bu njëkk bi mooy almuhaajiruuna mooy ñi nga xam ne lu jiitu muy dem madinatul munawwara lañ ko gëmoon topp ko ànd ak moom mi nga xamee ne borom bi subhaanahu wa taala joxe na ndigal ñu gàddaay ñu ànd ak moom gàddaay nee nañ loolu ab xaaj la xaaj bi ci desaan nag mooy ñu baax ñu tedd ñu rëy ngëm ñu tabe seen alal ak seen daraja te ñoo ñooy waa ansaar mooy ñi nga xam ne ñoo dëkkoon madinatul munawwar ak li ko wër te daalaloon saxaaba yi yaatal leen ba ñu am najaax ci woote bi nga xam ne moom lañ doon woote ñooñu mooy ñaareelu xaaj bi ñetteelu xaaj bi nag mooy ñi nga xam ne bokkuñu woon ci ña gàddaay bokkuñu woon ci waa ansaar waaye ñoom dañoo yéex a tuub ñu ngi tuub ci bisu fatxu Makka ndax fatxu Makka li tuub ci mbooloo ëpp na ñaari junni ci niñ ko nettalee ñooñu dañ leen lime limaale ci saxaaba yi waaye bu ñu leen limaale ci saxaaba yi duñ leen boole ci génération bi nga xam ne wala groupe bi nga xam ne ñoo àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaay duñ leen boole ci groupe bi nga xam ne ñoom la ñu woowee waa ansaar waaye dañ leen wa boole ci groupe bi nga xam ne ñoom ñoo tuub ca bisu fatxu Makka mooy ba mu dellusiwaatee Makka di ko ubbi. te ñooña daanaka mën nga ci doon jox misaal mën nañ laa wax ne la Abu Sufyaan ci la bokk mën nañ laa wax it ne la Abdullah ibnu Quhaafa mi nga xam ne mooy waajuru Seydina Abu Bakr mi nga xam ne mooy xalifa bi njëkk te incha allahu taala bu ñuy tàmbali di waxtaan ci saxaaba yi ci moom la ñuy tàmbalee. kon ci gàttal ñetti xaaj yooyu mën nañ koo wax ne mooy yi ci gën a fës ci saxaaba yi mooy yi ci gën a fës ñoom nag. sun borom subhanahu wa taala moo leen gërëm ay ngërëm yu wuute yoo xam ne bari na fu mu ko waxee ci alquran léeg-léeg mu tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu koy tagg boole ci ne ak ña àndoon ak ñoom muhammadun rasulullahi wallasina maahu nee na muhammad mi nga xam ne mooy yonente yàlla bi ak ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom ak ñi nga xam ne ñoo àndoon ak ñoom allasina ma allasina maahu wala si ne maawo bu ko waxee mi ngi ci jublu mooy ñi nga xam ne dañoo àndoon ak moom ba noppi te gëm ko wax nañ ne laqad radiyallahu anil muminin loolu it bu ko waxee moom subhanahu wa taala lenn ci saxaaba yi la ci jublu am na it xeeti tagg yoo xam ne par kenn ci ñoom ñoo ko moom ngir xew-xew boo xam ne dafa am ñu wane ca taxawaay boo xam ne nii bégloo na yàlla gërëm loo na yàlla ba sun borom wàcc ci aaya te loolu kuñ ci ñëw ci ñoom rek danañ tudd aay yi nga xam ne yow yaay sababu nusul ba tax mu wàcc ñoom saxaaba yi nag dañuy tere jullit yi ñuy wane ak parparloo ci ñoom masalan ngay wane ak parparloo gu fés ci yëkkati nit ba koo teg ci kaca des wala wàccee kenn ci ñoom ndax ñoom ñëpp borom xam-xam yi nee nañ ñu tedd lañ ca yàlla donte sax seeni daraja ak seeni maqaama wuute na ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam léeg-léeg mu jékki-jékki am ci ñoom mu jékki-jékki seet kenn ci ñoom wax ci moom lu rëy a rëy loo xam ne du ko wax ci ka ca des waaye daal lu mën di xew mooy ñu jàpp ne ñoom ñëpp ñu yàlla gërëm lañ te it wuute gu amoon ci ñoom wala xeeti jàppante yoo xam ne amoon na ci ñoom ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu dañuy tere jullit yi di ci xuus wala di ci wax wala di ci commentaire wala di ci wane yenn parparloo yonent bi sallallahu alayhi wasallam tagg na leen ba tey wax na ci ahadis yu bare bari na sama saxaaba yi dañoo mel ne ay biddiw boo ci topp rek mel na ne tegu nga ci yoon nga xam ne mooy yoonu jub loolu ba mu koy wax asxaab yi la wax tàqaliwut kenn mboolem saxaabaam yi nga xam ne ñoo àndoon ak moom gëm ko kon ci gàttal rek loolu moo di saxaaba yi seen gëneel di lu rëy rëy rëy loo xam ne nii mënee su ko tënk ci ay minute waaye doy na sëkk rek ñu wax ne Maulana Cheikh Ahmadul Xadim ridwanullahi alayhi Serigne Touba ni mu fësee ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu fësee ci liggéeyal yonent bi ak julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam noona lay feeñalewaat bu baax a baax a baax saxaaba yi seen njàmbaar ak cofeel goo xam ne am na ko ci ñoom ndax bu fekkee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo nekk makaarimul axlaax yi nga xam ne mbooleem jikko yu rafet yëpp yu tedd yëpp dafa daje ci moom jikko yu rafet yooyu léeg-léeg da ngay gis benn ci jikko yu rafet yooyu mu fës ci kenn ci ñoom baneen fësaat kenn ci ñoom baneen fësaat keneen ci moom kenn ci ñoom waxtaan gi ñu koy waxtaane nag ci ñoom wala xam gi ñu leen di xam day doon loo xam ne nii day yokku ngëm waaye day yokku cofeel ci yonent bi sallallahu taala alayhi wasallam moo tax sëriñ bu mag bi sëriñ Tuubaa boo dee xool xasida yu yi nga xam ne dafa fës lool ci wàllu tagg ak julli yépp boo ci dem rek da nga ko fekk aw tagg woo xam ne nii tagg na ko saxaaba yi ridwanullahi alayhim boo demee ci gës bu bi nga xamee ne tagg na yonent bi tagg yu yu yéeme yu kawe julli ci moom waxtaan ci siiraam ba mu demee ba nga xam ne ma ngay nettali bi sub xasatu badrin foofa tudd na fi saxaaba yi seenu njàmbaar ca bisu badar boobu waaye it ñaanal leen xam ne ne ñoom aw nit lañu woon woo xam ne ni ñu ngi doon dox ci kaw suuf waaye suñ borom da leen a jéggaloon yow mun bihi xat xafara sunu ba man xat xadara kataaluhu rabbul wara kabiratan kalama mi boo demee foofu la bayit yi tàmbalee yoo xam ne nii ña nga xam ne ñoo teewoon badar ci ñoom ñoom la fi sëriñ bu mag bi di tagg di xam ne ne teewaay boobu ñu teewoon lim leen jural mooy njëggalu yàlla loo xam ne nii lu kawe la waaye njëggalu yàlla googu teewut ñu continuer di waneeg jikko ju rafet ak ak mbaax ak yaatal bu baax a baax ak jàppale kuñ jàppale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kasaalika it boo ñëwee ci xasiid ak mawaahibu bi mu fi taggee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne xasiida gu fës la ci tagg yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam moom sëriñ bi it fàttewut wala bàyyiwut saxaaba yi foofu moom it tagg na leen fa bu baax a baax a baax a baax ñaanal leen fa kañ leen fa boo demee ci xalaat saxaaba sawil ijaaba yawmal kaaba rida sanaa'i nihma rijaalu lahum majaalu niilu wa naalu waxtal xanaa'i rida samiixi alal jamiixi yawmal xusuuxi yawmal nidaay ay tagg yu bare bare bari ba àgg naan kullun su jaaxu la horti baaxu la horti faaxu waxtari faaxi muy tagg saxaaba yi foofu tagg yu kawe kawe kawe naan ñoom ay góor dëgg dëgg mooy ñoom ay jàmbar dëgg mooy ñoom ñu làq ngërëmal borom bi dëgg-dëgg mooy ñoom ñoom ñëpp sax ca loolu dana gën a fës bu baax a baax ëllëg yomal xiyaam wax ne ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ ñoom ñëpp ñu daa góorgóorlu lañ ci tagg yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam kasaalika it boo ñëwee ci xasida ak raaya xasida yi daanaka boo ci jël rek boo xoolee ca jeexantalu tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dana ñaanal saxaaba yi wala mu ñëw ci ñoom ak tagg wala mu ñëw ci xulafaa al arbaa kenn par kenn tagg leen waaye boo demee ci xasiida ak muqaddamatul amdaax foofu moom dafa fis lool foofu daa wane ne moom mel ne lu xar jëmm ji ñaar naan loo sopp sopp soo yónnent bi ak loo xër xër ci moom ak loo wane pëstéef ci taggam yow xaadimul muxtaar na nga fexe ba bul fàtte saxaaba mi saa yoo noppee ci sa xalima ci yónnent bi te doo ci noppi mukk waaye saa yoo taggee ba tagg gi wala xasida gi di daanu faawu rek danañ ci gis ne danañ ci ñaanal saxaaba yi ca mujjantal ga wala mu tàgg leen ci looloo tax ñuy gis bayit bu siiw boobu nga xam ne dafa mel ne keneen lay waxal fekk boppam lay waxal mu naan ayaa xaadimal muxtaari laa tansa saxbahu fa man yansahum fal madxu madxun muxatta u yow xaadimul muxtaar yow xaadimul rasul na nga fexe ba bul fàtte mukk saxaabaam yi ndax képp koo xam ne tagg nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak tagg ga lu mu neex neex te boole woo leen ci nga xam ne sa tagg kooku manqué na matut looloo tax sax moom sëriñ bi da nga gis muy feeñal ab cofeelam ci saxaaba yi ridwanullahi alayhim di ko wane ci mbindam di ko wane ci aw doxinam bu baax a baax a baax di ko wane ci ñi nga xam ne ñoom la doon yar ndax daana daana xemmeem loo mag ñi bu baax a baax a baax saxaaba yi comme ni mu leen doon xemmem loolu yonent bi daana àgg banaan saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci diine maanaam ñooy seen royukaay ci diine kon sëriñ bi am mbindam saxaaba yi fis nañ ci lool lool lool lool lool àgg na banaan fadailu saxbi inda allahi jalla ala xan xaddiha kallat aqlaamun wa astaaru ngëneelu saxaaba yi daal fa yàlla suñ borom ku ko doon jéem a bind na nga xam ne sa xalima du ko man waaye it doo mën a contrôler mbind mi bari waay bu muy bari ngir ne seeni ngëneel dafa bari bari boo xam ne nii kenn kenn mënu koo tënk kon yaakaar naa nekkul loo xam ne luñ mën a tënk la ci ay minutes ci ay wax comme ni nga xamee ne noonu lañ waxee ne kenn mënu koo tënk ci am mbind kon daal saxaaba yi ci gàttal rek li nga xam ne mooy suñu warteef ci ñun jullit yi mooy ñu sopp leen ñoom ñëpp bëgg leen ñoom ñëpp te di leen ñaanal ñoom ñëpp te xam ne diine ji ak lislaam ji bu tollee fii seen njàmbaar ci la feeñ la ci bu baax a baax waaye di leen waxtaane bu baax dana dana tax ñu xam fu ñuy teg suñu tànk ci ñoom ñu xool ñoom nañ bëggee woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nañ doon royee sunna nañ doon jaamoo suñ boroom xeeti makaarimal axlaax yi nga xam ne jikko yu rafet yi nga xam ne moo daje woon ci ñoom loolu buñ ko jàngatee dana tax ñu daje ngërëmal yàlla ci loolu te wax giñ leen wax it lu neex yàlla la lool lool lool ndax waxtaane ku baax lislaam da ko taamu te it gaa ñu baax ñi dañ ko taamu bu baax a baax a baax kon mbokk yi bindu tay bii ak ubbi la woon rek ci bind yee ñu jëm xam ne bindum ñaareel bi danañ ñëw bu baax a baax a baax kan mooy Seydina Abu Bakrin nan la meloon wala lan moo nekkoon aw doxinam lu jiitu yonente bi sallallahu alayhi wasallam suñ borom di ko jox ndigalul wate gi nan la àndawoon ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam lan mooy ay manaqibam nan la jële xilaafa gi ba nan la wàcc bi liggéey ak lan mooy li gën a fës ci li nga xam ne liggéeyal na ko lislaam loolu mooy doon bind bi nga xam ne mooy topp ci bind bi bu ko defee buñ jëlee alxulafaalu arbaa li desaat ci al asharatu mubashirina bil janna mooy fukk yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam tuddoon na seen àjjana leer na ñu jël fukk yooyu ba mu jeex danañ jëlit soxna yonent bi danañ jëlit saxaaba yi nga xam ne ay jigéen lañ doonoon ay jàmbaar ak ñi nga xam ne seeni tur taxul mu siiw lool ñooñu ñëpp kenn ku nekk ci ñoom danañ ci def ab bind boo xam ne danañ ci feeñal suñu góorgóorlu bu baax a baax a baax di ñaan yàlla mu barkeel lépp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu